yaa rabbana bi xurmatil quraan wa bi rasuuli dayaan wa bi barakati xuruufil quraan wal axaadiisil qudsi wa bi xurmati xuruufil qasaa'idi waaw tey moom yaakaar naa ne démb ci ay 19 heures lañ commencé woon seggoon nañ lu tolloo ci 15 mbana yoo xam se ni seggoon nañ ko di ko suukar di di joxe ndékki waaw léegi fu mu fu mu jeexee rek ñu continuer waat ba keroog yëf di jeex incha allah xoolee jumaa ji foo dem nga fekk suñu équipe boo xam ne ma nga fa taxaw te it ku ñëw fii tamit ñu wax nañu fii am na ñu fa nekk ñu soxla café dañuy def le tout pour ñooñu am café boo leen équipe bu doy. jox leen ay capteur ak ay kaas ñu dem foofu xidma gisoo gaa yaa ngi nii di ñëw di di di jël café di yóbbuwaat waaw fii boo waree jumaaj fii yëpp boo demee nañ fi fekk suñu équipe ñu taxaw di waajal xidma bi rahmatullah ñooy siyaare mbokki taalibe yëpp eh, di sant sëñ Tuubaa bu baax ci tawfeex ji muy dimbalee bañ koy liggéeyee eh, seenum ndongo sëriñ Adama Ba ci waa jëriñu collation eh, mooy wax ak yéen di leen nuyu di leen siyaare bu baax ci jëf ju rafet ji ngeen jëf Adama Ba leen tudd matuwaay de mooy nekk doon daaw bi ko sëñ bi wootee ci wàllu collation ñu ànd kook suñu waa mbokk daanga dongo yi mooy is bu tarxiya Euh, ci jëwriñ sëñ Youssou Diop ak suñ jëwriñ sëñ Cheikhouna Mbacké ñu bokk ànd liggéey bi mu liggéey bi rafet lool ren ñu defal ko noonu mu mel ne ni ko baaxoo defee moom lu yomb la waaye nag lu jafe la waaye lépp nag day tawfeex sëriñ bi rek moo tax mu yomb collation bi dañuy bu tàmbalee bu suñ bi joxee ndigal li dañuy dem dugg ci àll bi wuti bi saabu weex ak bu xonk ak euh, limon muy citron ak buy ak xeetu was boo xamante ni lépp euh, kii lay doon jus lay doon mu mel ne ñaari fan laa doon waaye ren daa gën a métti ndax lépp ci benn fan lañ daaw lu defa ñaari fan ren ci benn fan lañ ko def mu mel démb ci 7 heures du matin lan tàmbaloon di xooj bisaab ak di xooj euh, mboolem jus yi ci war a yi war a defal guddi gi yëpp bërigo yi ngeen ci guddi gi leen fiyee ci ko sukar ci leen ko sol fi may waxee ñu ba ne fi doon defaree am nañ fa 27 bërigo yoo xam ne amagu sukar na ko pare mais amagul bouteille ndax usine bi yi ñu commandé daa dem ba bouteille daa manqué xanaa fi mu war ko defar su ko defee ni ñu koy séddale mooy section mboolem lu wër jumaa ji si kër suñu jumaa yi fa am ay éléments yoo xamante ni ay section lañ fa def waxtu nekk kenn ku xool nombre ba fa doy ñu ñëw jox leen ñoom ñu yóbbu su ñu demee séddale bu fekkee ne am nañ ay nag ay yoo xam ne ay superviseurs du terrain bi foo manqué ñu élément ñu joxal leen ñu dem ñun daal mooy mboolem gani sëriñ bi kenn ku nekk boo xéwloo ba noppi ñu jox la lu naan ko liggéey bi noonu leen ko àndee ci mbooloo mu takk boo xam ne ci kenn ku nekk jóg ci ay gox fasanti ko waaye liggéey bi rafet noonu daal ko fas yéene liggéey sëriñ bi ci ndigalam waaye nag ci ndigal suñu ñaari jëw ni muy sëriñ Yuusu ak sëriñ Soxna Mbàkke yaa rabbana bi xurmatil quraan wa bi rasuli dayaan wa bi barakati xurufil quraan wal ahadisil qudsi wa bi xurmati xurufil qasaidi